Ibnu Xaldun wax na nag yooyu na muy dëddu ak yittewoo jaamu yàlla loolu mooy tariixa mooy yoonu suufiyanke yi wax ne ci xarnu ñaareel bi bi àdduna jëwee nit ñi dëgmal àdduna sori dox jëm ci yàlla ci la ñi nga xam ne ñoo desoon ca la yonente ba desoon ñu leen di tudde ay suufi ak mutasawifa loolu Ibnu Xaldun wax kon tasawuf yonente ba ci la tàmbalee mu doon ko dund ak saxaaba yi bi nga xamee ne ginnaaw yonente bi li ñuy wax al mulkul mooy adduna dikk na nguur dikk nit ñi yittewoo àdduna ak politique ña desoon ca la yonente ba nekkoon ñoo leen tudde ay suuf yi ak suufiyaan yi fi mu ne baatu tasawuf ci njëlbeenu xar xarnu ñaareel bi lañ ko tàmbalee dégg te ibnu xajarin al haytami nettali na ci alfataawa alxadisiya asiraaju tuusi yi itam nettali na ko ci alluma wax ne xasanul basri daana wax ne raaytu suufiyan fi lmataafi fa aataytuhu cheyan fa qaala maci arbaatu dawaaniq mooy moom ca kaaba ga fa ñu wëri kaaba gi nee na gis naa fa benn suufiyanke ma am koy jox bëgg ko sarax mu ne ma maa ngi ñeenti fifteen ci gàttal rek dawaa nekk te doy na ma sëkk te xasanul basri mi wax wax ji mi ngi fi mu ngi fi jógee atum cent dix hijriya téeméer ak fukk am na ku ñuy wax musaawir al warraq mi ngi faatu atum téeméer ak juróom fukk cent cinquante hijriya ab waykat la woon ci waa Kuufa la bokk min ashaabil xadiis itam ci ay wayam da gis mu wax ne tasawafa kay yuqaala lahu amiinu wa maa yaani tasawufa wal amaana wa lam yurid il ilaha bihi walakin araada bihi tariqa ila alxiyaana muy wax benn waaye ne ko moom day nuru nuru lu sufiyanke yi bëgg nit ñi jàppee ko nit ku wóor ku baax ko jub te fekk sufiyanke gii nii tax koo jub moom bëgg a war nit ñi ci aw meloom moo ko tax a jub te kii mi fi jógee atum cinquante ci hijriya moo wax wax ji loolu mi ngi ci faydul qadir bu almanawi ak al aqdul farid bu ibnu abdirabbi sufiyaanu sawri itam gis nañ nga mi ngi fi jóge atum 161 ci hijriya ibnu jawzi net na ci sifatu safo ak fatawal xadis ya bu haytami ak siraaj tuusi nettali na ko wax ne sufiyaanu sawri daana wax ne lawla abu haasimin suufi maa araftu daqaiqa riyaa bu dul ko ne abu haasimi suufi du ma xam sew-sew yi nekk ci ngistal ngistal ni mu sewee ni nga xam ne noonu la yembe yombe ashirkul xafi kon dañuy gis ne te ñii ma wax ñëpp ñu ngi ci maanaam atum maanaam siècle bu njëkk bi téeméeri at yu njëkk yi ak ñëlbeen gu ma jege kon dañuy gis ne tur wi teel nañ koo tàmbalee wax di ko tudde ñi nga xam ne ñoo baaxoon jub am melo wala xam ne moom la saxaaba yi nekkoon ña doon roy roy lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam